الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً mbokki jullit yi mbokki taliba yi rawatina yéen ñi nga xameen ci daara ak alquran na leen assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalu Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kulu murit yal na fi yàgg te ànd ak wér yaram Serigne Moussa Nawel Mbacké yal na fi yàgg lool te ànd ak wér yaram Serigne Khadim Ndiaye ibnu Baye Serigne Ndiaye daaray Kamil ginnaaw bu leen nuyoo ziar leen sant yàlla bu baax ci taxaw gi leen waajur yi taxaw ba tey ñu mën a taxaw alquran mooy am mbégte di yëgal mbokki julit yi mbokki talibe yi rawatina ñi nga xamee ni daara ak doxeenu daara yitteel na leen ni foos yéene na ubbi daara jumu doon amal daara ji nag ñu ngi ko tuddee waajuram bàyyi Serigne Ndiaye daaray kaamil ngir delloo ko njukkal sant ko ci yar bi mu ko yar jàngal ko alquran jébbal ko Serigne Moustapha Bassirou mu tarbiya ko ba tey mu mel nii mu mel loola mu ci sant yàlla bu baax da ci sant waajuram foos yéene ko delloo njukkal looloo waral daara ji man ko duppee Baye Ndiaye daaray kaamil li tahfiidil quraanil karim wa tarbiyatil islaamiya daara ji mag ju am solo jooju nag mu tabax ko ca Tuubaa jannatul mawa mu koy yëgal ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn rawatina mboolem waa Tuubaa jannatul mawa gépp mbind mi nag door nañu ko képp koo xamen si yor nga doom bëgg mu jàng alquran ñu yor ko yarub lislaam teg ko ci condition yu am solo ba mën a mokkal alquran dégg diineem dagan daal di mën a andi sa doom wala nga woote ci soixante dix huit quatre cent cinquante cinq cinquante et un cinquante et un soixante dix huit quatre cent cinquante cinq cinquante et un cinquante et un wala 76 455 51 51 76 455 51 51 mbokk yi daara ji ngi noonu muy daaray Baye Serigne Ndiaye daaray Kamil li tahfiz al Qur'an al Karim wa tarbiyat al islamiyya kan moo ko taxawal Serigne Khadim Ndiaye ibnu Baye Serigne Ndiaye daaray Kamil mu amal ko nag ngir bay waaram ci toolub l'islam ak delloo njukkal waajuram mu sell woowu nga xamee ni si moo ko léppal ba jëbal ko Serigne Moustapha Bachirou Mbacké ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey séentu ñëpp inscription ba rek door nañu ko ma ngi séentu ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja